dal jàmm mbir yi yoon bari lool ci yéenekaay yi nu xëya ndoll l'observateur ci la bokk journal groupe Futurs Médias bi xëy delsi waat ci mbirum trafic passeport diplomatique ak fa procès ba toll journal bi ne fi toll procureur nee na nan baral mbir ma ba noppi di sàkk ñu déglu Mahmoud Saleh waaye itam ñu déglu chef de protocole ba nekk ca présidence de la république su su ànne dëgg la mbiri trafic passeport diplomatique yi am na leneen lu ci yees ñaari gendarme lañ ca tuddoon waraloon ba àtte ba a président de la république ca yooye jamono waaye tamit chef de protocole ba nekk ca pale ba ñaari gendarme yi nu ca jàpp nag ba fii lànk la ñu def ne lañ leen di tuumaal dara lañ ca deful te nee na du ñu nangu benn yoon di nekk nagu saraxu kenn yéenekaay bi ne lu ci mën di am daal aljuma bii di ñëw ci leen jàppaat seenu procès procès Ousmane Sonko ak Adji saar kañ la nar a doon enquête yéenekaay moo ci defub enquête ba xëy becc la mu ca xam ci aw xëtam journal bi ne Adji Sarr mi jiiñoon Ousmane Sonko viol ba tax seeni mbir àtte ji ca yoon seenu procès soreetul fi mu toll gaañi ñoo ngi tegi pexe yoo xam ne ca noppee rek procès bi dina taxaw te nag bi la bi nee li nu bëgg moo di ñu amal lépp te coow du jip coow lu jip ci diggante Aminata Touré ak waa Benno Bokk Yaakaar jeexagul si du quotidien na noo wax ne day tàmbali Walf Quotidien waa Benno Bokk Yaakaar seen bëgg-bëgg moo di jële Aminata Touré ca péncum ndaw di Assemblée nationale lii quotidien samp na ndax Aminata Touré jurisprudence Mbaye Ndiaye Cissé Lo dabu ko ndax nag maître Oumar Youm nee na Aminata Touré bu bëggee bu waa benn bokk yaakaar jaaree gauche mu jaar droite ñoom ku démissionné lañ koy jàppe te bu boobaa tekki ndombal tànkam lu mënta ñàkk lay doon fàww ñu remplacer ko ki ñu remplacer ci gouvernement bu yees bi kay moo di Abdoulaye Daouda Diallo laas moo nekkoon jëwriñ jore wàllu budget finance waaye nag Abdoulaye Daouda Diallo génn na ci cell gi mu nekke woon ndax nee na ñiy njort ne dafa mer wala fàtte ko ne Abdoulaye Daouda Diallo nee na merul merluwul yéenekaay bi yokku ca ne gouvernement bi mu bokkul te Amadou Ba jiite ko moom Amadou Ba moo ngi ciy pexe ba noppi ne bu weesoo li leen njiitu réew mi di président Macky sant ko daar daar lu nu bëgg moo di ndakaaru dellu si ci seeni ci seen kemtulaay kartan tribune yéenekaay ne moom Amadou Ba ak gouvernement bi mu jiite li ñu war a def seen kemtulaay kartan moo di li leen njiitu réew mi di président Macky Sall sant wàññi dund gi ndax nag loolee la boroom kër yi bëgg a dégg yéenekaay bi yokku ca ne li ñu duppee nag bay dunde ba fii lu mënta nekk la le vrai journal Fall moom xëy seeti économiste ñuy joxe pexe ak yan yoon lan mën a jaar ba wàññi dund gi ci réew mi réew mi école ubbi na tey le soleil national ne dëkk yi gën a sori tey lan gën a manqué jàngalekat te nag jàngalekat ya fa nekk kus néew jóge fa rek la ñu bëgg fu ci mel ni Vélingara Kédougou jàpp Matam journal l'info ne li ñu duppee ubbi tey jàng tey moom bu mu jëm kaw ndax lu mënta nekk la yéenekaay bi ne benn école yi bëri na yu ci ami jafe-jafe amuñu ndox amuñu courant na la ko yàlla nëbb ñaar bëri na yoo xam ne si mbënn mi a biir ndox ma ñett am na ci école yoo xam ne ba fii ay doomu aadama ñoo ca dëkk ñeent abri provisoire yi ci réew mi moom mënta jeex bés bi la journée ci Dakar rek lu gàtt-gàtt téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaari école dañoo taaba kenn mënu faa jànge di lu doy waar li doy waar kay moo di bâtiment ba daanu ca Kaolack l'observateur ne amoon na ay doomu aadama yu ca ñàkkoon seen bakkan amit ñoo xam ne si jëlee nañ ca ay gaañu-gaañu tax journal uri 15 angul corniche bi jox kàddu gi ñu ca seen mbokk lorole na waar daw na yaram li daw yaram dëgg kay moo di octobre bi narta 14 le quotidien tëj teg hôpital Aristide Le Dantec bokk na ci li ko waral lan moo waral yoon bàyyi doomi Mariama saar ji libération yéene kaay ne xanaa li yaayam nekk ministre moo tax ñu bàyyi ko ndax nag ay njombe yu bari la def te doon dawal te yorul permis fiir boroomu moto ba noppi daw bàyyi ko fa yéene bi ne takk der yi jàppoon nan ko bàyyi ko jàppaat ko bàyyiwaat ko li ko waral nag moo ngi ci page 3 bu libération NCA assurance TDST Touba Darou Salam Karo